naataal fanweer ak ñett Jésus ngi ñuy nettalil ab xew-xew benn waay dafa jël wàllam ci ndonoom mu daldi dem ci benn dëkk bu sori lekk fa xaalis bi ba mu jeex boole ko ak def bàkkaar yu bari bi xaalis bi jeexee ab bekkoor wàcc ci dëkk bi waa ji daldi xiif ràgg mu daldi rëccu rëccu li mu doon def mu dellu si si wetu baayam ngir jéggalu ko ginnaaw baay ji ku ko bëggoon la mu daal di koy baal loolu daf ñuy jàngal ni suñu bàkkaaree dañu war a rëccu te tuub yàlla ku ñu bëgg la te sarax bi Jésus def tax na yàlla dañu jéggal